mbokki Sénégal mbokki Pire ak li ko wër ñu leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay ah ñu ngi fii ci foyer des jeunes ci conteneur bi nga xamante ni jaraaf dëkk bi di Mamadou Ndoye Bane moom moo ko indi woon fii ci dëkk bi Mamadou Ndoye Bane indi na fi conteneur boo xamante ni def na bagage yu bare bare bari bagage yu mucc ayib bagage yoo xamante ni mag dina ko soxla xale dina ko soxla bagage yoo xamante ni wax dëgg yàlla mën nañ ci occupé mairie bi nga xamante ni mooy maire bu njëkk ba écoupé ki itam mairie bi nga xamante ni mooy maire bu bees bi nga xamante ni sunu président wax dëgg yàlla fas na ko yéene àggale ah waa tund piir xëpp leen xool bu baax li nga xamante ni moom la moom Mamadou Ndoye Bane def ki tund wi lii nekk lu ñuy fàng la lu ñuy fàng kenn du ko jeex ab maire li lañ koy dee ab maire buñ koy fal dañ koo fal pour mu jëmale dëkk ba kanama Mamadou baax na mi ngi jëmale tund wi kanama yal na ci yàlla def barke démb rek la ñu indil ambulance semaine bi tam am na benn ambulance boo xamante ni war na ko indiwaat ci dëkk bi te yéen gis démb bi tam wax dëgg yàlla ma madame la ministre ne na Fatoumata Tall bi ñu ko fi indee wax dëgg yàlla teral na jigéen ñi bu baax a baax Mamadou Ndoye Bane lépp loo xamante ni day taaral mu tund Pire ak li ko wër ci xëy ci lay di alaaji Massar Diop li nekk nekk na loo xamante ni lu rafet la DG Khaly Touré mi ngi taxaw ki nga xamante ni mooy directeur rajo Yague FM 95 point 9 ànd ak équipe boo xamante ni wax dëgg yàlla équipe bu mucc ayib la ñëw fii nga xamante ni fi la ñuy xoolee mbirum conteneur bi grand naar Diop a ngi noonu moom itam nekk kenn ci liggéey bi waa jàmbaar lool xale yaa ngi nii wax dëgg yàlla li nekk nekk na loo xamante ni lu am solo la. Mamadou Ndoye Bane tund Pirelli ko war a ko lu ni fang kenn du ko jeex bagage yaa ngi nii ko gis seen bopp sama waaj man lay bëggee de mais loo loo santé tey. am hmm. mbir lañ koy doyee de. di lay xale yaa ngi naan yéex nañ cee jot mag ñi naan yeex nañ cee jot ab maire lii lañ koy doyee sunu coordinateur a ngi noonu di El Hadj Masseer Diop tey nag moom moo nekk adjoint maire li nekk nekk lu am solo.